wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa nasara ala nasimi hasil xasida barakaati xawlihi tabaraka wa taala fa xus ma ataytuka wa kun min alshakirin wa xawlihi taala balillahu fahbud wa kun min alshakirin wa qad sakara allahu taala bihi أشكر الله عز الورى باندفاعي بكتاب ساق العدا باندفاعي أشكر الله عز الورى باندفاعي بكتاب ساق العدا باندفاع لم يمل كالكليل خير إلهي ولربي قول تعا وسماعي lam yalid fi lfuaadi min nirtiyaabun fi lasin lahu xaadali sattimaai azaba zikru maliki kulla shakkin wali xayri sabal ida bin ximaai عدد له من خلاني بعيدا لسوى جانبي بخير استماعي تذكر لا للجنان عياتي بكتاب بدا به لانتفاعي علم القلب أن خير البرايا جاءه الوهي بالأمين المتاعي أديس النبي إنك حق لك خاتينا بأمر متاعي لك أن بمرخمي ومدادي لست أنفاك برداء بتاعي anta xil li maal kitaabi wa xiibi kunta li bil xitaabi ba'dal xitaabi bika tanmu masarati li jinaani shaafiyatin bilantihan wa xitaabi هربان من خير صناء لنهوي من خلوني من الورى بانقطاعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa sëñ Cheikh Absa mi nga xam ne ñun ñu bokkoon ci kër gi bokk yoroo fi bokk lépp mu suñ kilifa teew ci jataay bi jëmmal jëmmal nga xam ne moom te moom jëmmal sëriñ bi maanaam ab soññe rek lay doon ñi nga xam ne yàlla dogal na duppee nañ leen sëriñ Mountakha nga xam ne maanaam li sababu daayira bi moom moom ahlu ay donga ñoo ko formé woon bañ ko formé yàgg na lool kon pas-pas boobu ba léegi moom mooy dox moom la ñuy ñu di ci soññ suñ mbokki taalib bi yëpp képp koo xam ne du penn na sëriñ Muntaxa ñu ngi la ciy soññi ndax am na mag ñoo xam ne ñi ngi fi ku demee ne ki ñu Muntaxa xuma ku nekk demee ne ki Muntaxa ba ku demee ne ki Muntaxa Sekk dégg nga la ko ak euh, yeneen mag ñëpp ak Muntaxa jax ne Baay Bàll bokkoon na ñi ko taxawaloon kon ñooñu ñëpp na nga xam ne ñi ngi leen soññ bu baax a baax a baax a baax bëgg ñu gën di teew ak ñi nga xam ne ni ko mun taxaa waxee rek euh, seen i turo seen i doom dañ ko dañoo sopp sëriñ bi tudde ko ko maam ñi soxla nañ leen bu baax a baax a baax a baax ku ko déggoon te xamoo woon ne maanaam boo dugg see ñëw ci jataay bi ñu la woo ci wàllu jéblu yi wax ne def naa ne le 23 di gaaw bi di ñëw bu delsee ku fi ñëw rek daañu la wax doxalin ni ni ni ni mu demee daañu la ko leeral bu baax a baax baax a baax a baax. yaakaar naa ne tur képp koo xam ne maanaam maanaam maa xam nga tur ni mu demee wala dégg nga ko ci màngi rek buñ la ko duppee ak cant la war a doon ci yow ndax ma sama dégg ci menn mag mu baax mu ne day sëriñ bu day xool ba mu yàgg mu ne man de Muntaxa mii sëriñ Tuubaa waajal ci xasida yi foo dem fekk ko fa te gisuma tudde tudde ko doomam jaaxal na waaye baax na lu fi njëkk ñëwati rek lu soobee yàlla kon loola defe naa tegtal la boo xamante ne nii bu wér wér wér wér la ba tey loolu ko la ko gën a dollee firndeel mooy ni ko sëriñ bi wax woon fii rek ndax wax na fi nit ñi moom moom dañ ko waajal kon defe naa ñaari xiiso yi boo boo ko boolee dëppoo na kon nag képp koo xam ne duppee nañ la ko nga bokk ci daayira bi nga xam ne daayira moom mooy daayira bi nga war a bokk boo mën a bokkit bii rek mooy bi nga war a bokk bu noppi beneen boo ci teg nga door ko ca teg te xam ne liggéey sëriñ moom waxtu wu ci nekk rek am na tàmbali waaye amut fu mu yem ndax sëriñ moom naa daa doggoon léppam ngir taalibe yi ngir njariñul taalibe yi kon képp képp ku ci bokk rek war ngaa góor ngir liggéey sëriñ bi ngir ngir lool sa sa lépp war ngaa warante def ko ngir sëriñ bi maanaam nag di jégglu ci kàddu yi ndax xam naa nam nañ ko waroon a waxee moom euh, des na ndax wax moom dafa yombul waaye daal maa ngi soññu mbokki taalibe yi yépp dongo yi yi tudd muntaxaa ak soppe yi am di jàmm yi yépp ñu fas yéenee ñëw wuyu ci woote bii bu ko dee ku fi ñëw boo xam noonu ndox daal na ko leeral nga fas yéene taab bi fas yéene liggéey sëriñ di ñaan nag sëriñ bi yàgg fi te wér saa borom yàggal ko fi te wér ba lim bëgg liggéey sëriñ Tuubaa lépp mu mën koo liggéey te ñu ànd ko moom bokk fekk tal ko. wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk ci juróom ak santam waaye di ziyaare suñu yaakaaru tey ak ëllëg ak Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko suñu kanam ñu nit ñu yàgg ànd moom ci liggéey Serigne Touba bi di siyaare mbokki daayira turandoo Serigne Mountakha yëpp buñ ci jukkee rek sëriñ Muntaxa Mbàkke mu sëriñ Mamor Pakala nga xam ni mooy jëwriñ di sang si ci biir daara ji ak sëriñ Muntaxa Seex Muhammadul Moustapha Fadilu eh, di siyaare sëñ Muntaxa Mbàkke moom sëñ Seex Xabsa mi nga xam ni moo moo leen teewal fii ci jataay bi di ko siyaar bu baax Mbàkke di siyaare mboolem turandoo yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ci jataay bii ku dégg suñu kàddu nag xam ni ñi ngi waajal bis bi nga xam ni moom lañ daan amal at mu nekk ku ne xam na ni waxtu wi lañ daan yóbbul sëriñ bi suñu liggéey waxtu woowu nag jot na dëppoo gaaw le 23 avril tombe gaaw bii di ñëw bu dellusee euh, di soññu turandoo yi nga xam ni ñoo ngi ci biir dëkk bi waaye rawatina section yi yi nga xam ni mooy section diaspora bi ñu feete bitim réew ak section Touba Dakar Serigne Mountakha njaay Sambi jiite ko ñu ngi leen di soññ moog Serigne Mountakha Mbaye Parawa kon ginnaaw buñ soññee ñooñu di soññ ñi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ñoo xam ne bu gaawoo bëgg nañoo daje ci kër Serigne Bassirou Ka bëgg nañ gën ngaa naaj dix heures fekk fa ñëpp nga xam ni bu di jotee rek ñu mën a doon wenn say àndandoo ñëw ci kër sëriñ Touba gi jébbal Serigne bi sunu liggéey kon képp kuy dégg suñu kàddu samedi ñu ngi lay woo dix heures ci kër Serigne Bassirou foofu la ñuy déparé jóge fa ñëw fii ci kër gi fekk fi Serigne bi jébbal ko sunu liggéey ñu ngi soññaan ñëpp nag di jéggulaat bu baax di soññewaat ci àddee ji tamit bu baax a baax. li ci des kon bu sëriñ Mountakha Mbacké ñëwee rek dana ko mottali daal di mën a ñaanal mbooloo bi ñu mën a delluwaat ci téye kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah kon képp koo xamante ni si yaa ngi dégg euh, appel bii euh, na nga ci euh, joxe na nga ci joxe ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp am naa di taxawlu foofu rek di gàttal kàddu yi ndax am na jëwriñ yoo xamante ni si ñoom ñu ngi ñëw bu ñu ñëwee gën ci yaatal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa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 Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bachir di ko ñaanal suñu borom dolli ko fee yàggal lool te dolli ko ak wér ba naal yim naal liggéeyal Serigne Touba yëpp mu àggale ko te ñu ànd ko moom di ziyaare bu baax sama bokki taalibe yi ma toogal di turandooy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ziyaare jëwriñ Serigne Mountakha Ndiaye Sàmbe moom mi nga xam ne mooy jëwriñi daayira bi di ziyaare sëriñ Muntaxa Sekk Lambaay mi nga xam ne mooy jëwriñu waa Ndakaaru di siyaare bu baax sëriñ Muntaxa Siise Sàmm mi nga xam ne mooy jëwriñu waa Tuuba di siyaare bu baax sëriñ Muntaxa Jaw mi nga xam ni mooy jëwriñu diaspora bi ak mun taxa Mbay Padowa ak mun Muntaxa Jóob Babacar ñëpp ñu ngi leen di maase di leen siyaare bu baax di sant yàlla bu baax nag ci suñu bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal war cee siyaare si cheikh Mouhamadul Mountakha ñun turandoo cheikh Mouhamadul Mountakha yëpp euh, war a nekk le 23 samedi le 23 avril fii ci kër Sëñ Tuubaa gii ñu nekk euh, war ko fee siyaare si euh, moo waraloon jotaay bii ñu def ko rek ngir yégle ñëpp mën a xam ne. le 23 dañuy siyaare si Cheikh mun taxa yàlla nañ ko fi fekk ak jàmm ci barkeb Serigne Touba daayira bi nag eh, li taxoon ñu sos ko rek mooy ni ko ñoom mun Mountakha si la ñuy waxee Mountakha si sa sàmm sëriñ bi dafa bëgg ñëpp xamante ñi xamante wul woon xamante ñi xamante woon miinante loolu rek moo waral eh, eh, daje bi sëriñ bi moom yàgg naa wax ne amul lenn lu mu ciy sàkku. wutu ci dara tamit lu dul ñëpp xamante yeneen rek ah, kon nag leneen lañ ca teg muy suñuy addiya ñoo ko ci tegal suñu bopp ngir xam ne ah, taalibe moom waxtu wu nekk daa war di eh, faggu addiya di yot sëriñam rawati nag ki nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy suñ lépp di Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw ah, dañ ko war di siyaare si waxtu wu nekk ndax siyaare ko moom day yokk pëstéef rek day yokk suñu pëstéef kon nag eh, te mag ñi dañ daan jóge fii ba Euh, dañ daan jóge fii di fekk sëñ Tuubaa Sarsara di dox ñu leen di dogale di leen nangu seeni addiye yi nga xam ni moom la ñuy jot sëñ Tuubaa ñenn ñi dañ leen di euh, gaañ di leen def lu ne di leen dogale ngir ñu bañ àgg ci sëriñ bi waaye loolu lépp daawuñ ko yëg ngir sëñ Tuubaa ma nga xam ne ni moom lañ dëgmal loolu kon war na cee bàyyi xel bu baax a baax di ñaanal nag waajur yi nga xam ne ñoom ñooñu tànn ci seen biiru njaboot tudde ñu lu Mouhamadul Mountakha kon loolu taw tawfeex la ci ñun kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax euh, kon daal yàlla lañ ko fi yàgg fekk te te yàgg ko jox euh, euh, liggéey bi yàgg ko jébal suñu liggéey mu yàgg ñoo ñaanal te siyaare moom daanaka at ba at la kon nag wax dëgg yàlla warees na ko mën a waajal bu baax a baax a baax a baax waaw di sant bu baax soppi yi ak ñi nga xam ne dañoo am yéene. Eh, bokk ci daayira bi te tudduñ Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoom it bu leen neexee sax ñu ñëw ndax am nañ seeni doom yoo xam ne ñoo leen fi teewal kon loolu lépp day gën a yàkkali rek waaw kon nag ah, nañ ci gën a góorgóorlu gën a xam ne daal ku amul lu dul lenn da nga koy fonk te ñun Cheikh Mouhamadou Mountakha rek lañ am kon nag nañ ko gën a jàpp gën cee mooy te gën ko ñaanal mu yàgg fi ba yéene yim am ci liggéey Serigne Touba yëpp mu liggéey ko nam ko bëggee ci barkeb Serigne Touba.